sëñ bi euh, liñ la jëkk laaj rek mooy ndax li nga xam ni euh, mooy euh, tata yi wala bis yi liñ ci recommandé woon joxe ay antiseptique ci chargement bi est-ce que gis nga loolu. non pour le moment man maa ngi doog a egg si d'habitude commencé gu ma dugg si tata yi je viens maa ngi jógee sama kër pour liggéey nii. Ah, da ngay dem pour liggéey mais depuis démb ba tey constaté woo loolu. bon démb bi may ñëw moom clando laa jël mais gisuma woon. ñu joxe fi antiseptique. dégg naa ce matin sama benn euh, cousin jóge na ville nee na d'habitude les les les bus Dakar Dem Dikk ñoom d'habitude ñu ngi koy appliqué mais tata yi ñoom gisaguma wóoraguma ndax ñu ngi koy appliqué am déet maa ngi xool huit huit laay xaar mbala tata bi bu ci njëkk ñëw ma jël ma xool nu muy demee mais vous voyez gis nga car rapide yi Ndiaga Ndiaye gis nga respecté wuñ yi. est-ce que kon affaire bi day nuru wax la rek mais àndul ak jëf daal waroon na ànd contrôle ndax ak feebar bi garaaw bi mu garaaw waaw peut-être war nañ mën a ànd ak contrôle parce que bu àndee contrôle peut-être gars yi mën nañu appliquer mais bu ànd ak contrôle peut-être am na ñoo xam ne dañ ko appliquer am na ñoo xam ne duñ ko appliquer d'habitude dans les normes ce qui est normal moo war moo war a ànd ak contrôle waaw affaire yi metti na torop metti na torop nag waaye tamit su doonee lu nga xamante ne day aar population bi tamit lu baax la waaw mais xaar bi bis ak war transport boo bu munta munta munta doon daal fu mu ne nii pour am ko léegi jafe na parce que nombre nombre de places rek la ñuy jël à part nombre de place léegi nangootuñu surchargé wa illaa nga jël taxi dem fa ngay dem wala nga xaar clando yi rek. na clando bu ma duggoon yoroon na ko waa yoroon na antiseptique bi. dafa doon lu nga xamante ne daal suñu sécurité la ñun en même temps ñun population bi suñu sécurité la duñ ko nangu nag mais am na ñu nga xamante ne duñ ko nangu duñ ko accepté. mais lu nga xamante ne si xel la sa xel lay nekk tamit si psychologique danga ko war a mën a accepter parce que dalay aar aar sa njaboot aar àddina bi yëpp lu nga xamante ne feebar bu nga xamante ne yow bu la jàppee du yem si yow kese mën nga lor junniy nit. ah xanaa ñu gën a duggaat si ñi xool nemmeeku leen bu baax du doy daal wante daal ñu gën a dooli daal ngàndaay bi daal waaw loolu daal laa gis daal waaw ñu gën ñoo jàppale ndax tamit nit ki ñu la xaw a sàggan benn boor daal. même bu gouvernement bi jógul ñu mun nañ war a mën a jógal suñu bopp aar suñu bopp daal. kay guddi yi ñu toll nii guddi yi ñu toll nii ñu gën a jàppandiku rek ñu gën a bàyyi xel suñu bopp lu waaye am loo yëg sa bopp rek bu yeboo nga daw danga xooli daal bu baax daal sa yaram ndax comme day wàll wàll bi dafa gaaw ñu jéem rek farlu suñu bopp daal yaakaar naa loolu daal muñ ci gën a mën a dimbale daal waaw te gën a farlu ci orgel beeg bu baax daal tamit ci la bokk. lancé mooy ngeen concentré wu li leen di xelal diwoo gel bi ak sol ay gants concentré wu bu leen nuyoo ba affaire bi wàññeeku ba pare li may wax état bi moom mu daan ñuy jàppale bu baax jàppale ñu bu baax parce que amul sécurité moom tëli bi. mais nañuy suivre conseil ka ñu ngi bëgg a ñaan lii na jeeg ñu ñaan mu dem feebar bi na dem ñun lii bëgguñu ko parce que sénégalais xamul tëju. tëju bi bu ñu tëju ñun yëpp a feebar parce que du ñëpp a am moyen pour di tëju sénégalais bu yeewu rek mu ngi jël tànkawam di dem di ut lu muy ñëw jox jabootam yàlla nañu si yàlla musal nan dama bëgg ñu def ñun yëpp ñu doon benn suñu Sénégal dem.